gars yi ñu ngi leen di bëggewaat di leen ziarewaat bu baax a baax ni ngeen koy defar rek saa su ne saa bu lam tasee rek noonu lañ leen koy defal jóge nañu arène national ñëw nañu mais xam naa incha allah ci kanam di ngeen mën a seetaan vidéo yépp seen seen site internet Ngoy TV mais vraiment combat yi tey neex na ah organisation bi itam mention spéciale ñu ngi félicité promoteur bi nga xam ne moo tegoon lam ji di yi itam mbër yi nga xam ne ñoo daan ñépp ah Mama digganteem ak ki nga xam ne moo di Gora Sock vraiment euh, Gora wane na ne dafa bokk ci làmb wane na ne ndaanaan la wane na ne champion la ndax euh, man li ma gëm mooy que ni euh, làmb boo ci nekkee da ngay làmb da koy def Gora Sock ndaanaan la champion la te da nga nekk ci keppaaru ay ndaanaan kon danga war a wane sa ndaanaan Mama Lamine it ndaanaan la ñoo ngi koy encouragé bu baax a baax a baax mais poids bi. dafa des dafa waroon gën a xam nga mooy loolu Gora Sock képp ku koy jël ah, ay presque ay moroomam moo leen sut taay kon dèjà boo koy jël il faut nga diis Gora booy break moom il faut nga diis mais ñu ngi koy encouragé di ko félicité bu baax a baax a baax moom Gora Sock te xam ne fi mu jëm moo gën a miti Gora Sock mboor yi dañoo nekk sa ginnaaw Gora Sock waratoo def erreur ci làmb goro da nga war a bàyyi xel. waxatuma la wa parcelle wa wa fi fini fii nii nu wut jamalaay xaw ma mais mborom bor yi dañoo demon bo gem góor sok soog ñew di digante mak tay sen de am ci ay tolof tolof ak yenen yenen mais essay nii la laase wax nga sa victoire teg ko fofu deg na nak nga lim deux personnes yo xamante ni nii war nga mëna béré ak ñom te deg la guuy gi war na la mëna may sas ci ko ci kaw ni ko ci teggin ndax dañ ko ñaan quoi kon guy gi booy bi talal na loxo fekkee mën nga ko may saas nga may ko saas sa combat yaak Moussa Ndoye combat boobu dafa neex waaw combat boobu dafa neex yaak Moussa Ndoye la ah Mama Lamine nag ñu ngi lay félicité wax dëgg fa la wane woo benn ñàkk jom wane woo itam dara loo xamante nii mooy loolu euh, surtout góor a ñëw na appliqué na def na li mu bëgg a def daan na la yàlla suñu borom may na ko ndam dañ koy ñaanal moom mu continuer yow itam ñu lay encouragé mais gars yi bu leen fàttee tafaatin Eumeu Sène incha allah dinañ def live di bëggee ñëpp jaajëf merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ne ni abonné ko rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est meilleur. Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si